yenn euh, de regret bi ma am ci ci loolu mm. ci li tax ñuy waxtaanee Cheikh Anta lu dul bésu ba mu génnee àdduna mm-hmm. xam nga loolu rek déjà mooy na ñun ñëpp suñu part de responsabilité ci lu ñuy continuer di suulaat Cheikh Anta parce que Cheikh Anta dafa am ay bës yu mag bés bu mu defee teesam fële ci France mu nekk premier jour bu un homme négroïde africain jugee fii géegee fii ci Bawol jàngee fii ci réew mi dem Occident dem ci seen université yu gën a mag jàng ba ci seen xam-xam mu wan leen da yéen li ngeen mës a wax lépp ci nit ku ñuul amut. histoire da ngeen ko falsifié ndax boo xoolee histoire fii ci ñun la jógee science bi ngeen di ndamoo ci Afrique la jógee. àdduna nag mooy tourné nag ba tey ji ñun mu indi ko ba lépp rek pour que ñun ñu xam ñu nekkan parce que il faut que ñu xam ne Cheikh Anta c'est pas que du curiosité scientifique nii rek boo ko ci dugal wala militantisme non non. Cheikh Anta dafa nekk di interroger histoire boppam lu tax ñun nit ñi ñu mel nii lu tax nit ku ñuul ki toujours ñu bëgg ñu teg ci suuf mu ne ok ci li ma jàng dinaa ci góorgóorlu jéem a xam ci loolu moo tax moo tax mu nekk nit ku polyvalent parce que dafay nekk ci ñu ah, li nga bëgg a démontrer nii boo ko bëgg a démontrer que allah foog nga jàng physique mu dem defi physique. Mm-hmm. nekk dem ñu ne ah non archéologie boo ko def foog nga def beneen type d'histoire mu dem defi loolu defi histoire ñu ne ah moo tax mu nekkoon nit koo xam dafa complet woon dafa jël xam-xam yépp dajale ko dajale ko pour prouver africain bi ne ko yow da nga war a nekk nit ku diin bés boobu dañ ko war a célébrer bés bi ñu ko bindee wax ko pare ñu ne ko ñu fexe nag ndar képp tëj ko ne ko ok am nga mention honorable sax waaye dañ la teree jàngale. parce que il faut la mention honorable pour enseigner à l'école dañ ko particulièrement ne ko li ngay li sa xam-xam bi ngay wax bul ko wax ci askan yi ñu noot ñun waa France dëkk yi ñu noot. yow sa xam-xam bi boo ko fa jàngalee ndax bu ñu ko déggee nooteel gi dootul yomb. ñun ñi ñu nootoon bés boobu dañ ko war a fàttaliku bés boobu dañ ko war a fete te ginnaaw loolu ñu tere ko mu jàngale du juf am na ci Senghor jàpp ci loolu Abdou Diouf moo ko permettre sax mu dem def yenn conférence ci àdduna bi. moom c'est lui qui lui a donné même le titre de professeur. professeur 93 mais n'empêche que Cheikh. bu ko waa UNESCO saisiré pour ñuy bind histoire générale de l' Afrique mu nekk nag ñu ne histoire Afrique comme tey jii Sénégal ñu nekkee ci coowal histoire générale du Sénégal dañu ko war a bind bi ñu waree bind histoire générale Afrique ñu woo ko ne ko Cheikh Kanta ah, comme yow waxoon nga ci Afrique nga ma mu ne duma ci wax mukk lu dul bëgg naa képp koo xam ne sa xam-xam màcc na ci Afrique surtout ci égyptologie mhm. da ngay ñëw ñu toog mhm. ñoom ñëpp ñu dajee keroog ca Caire mhm. donc na naa su ma jumul 28 ba 31 janvier 1974. 1974 dañ ko war a di feete ñun fii ci Sénégal. Mm-hmm. Cheikh Anta Keroog moom ak borom xam-xam yi moom ak borom xam-xam yi bañ na ko mujj gi xam nga fan lañ mujjee moom les armes ne sont pas égales. toog mënuñ la mënuñ la tap. Mm-hmm. booba lañ histoire d'accord défaite ñu nangu ne nit ku ñuul. histoire tey jii bu tollee fii humanité bu tollee fii science bu tollee fii ba ci la raison bi ñuy wax noonu la raison n'est pas hélène la raison elle est humaine ñu ko ko bokk Cheikh Anta ñun buñ ko buñ tey ñu jàpp ne loolu sax ay cëslaayam ay cosaanam mi ngi jógee ci Égypte boobu nga xam ne ay nit ñu ñuul ñoo ko jàng ndax ñun ñoom dañuy ndamoo muy ñoom Pythagore muy seen borom xam-xam yu mag yëpp dañu demoon foofu Thalès ci jàng ko ci ñun nit ñu ñuul ña mm-hmm. loolu la Cheikh Anta indil nit ku ñuul pour mu gëm boppam ñun bés boobu dañ ko waroon di féete mm-hmm. Égypte sax moom moo Cheikh Anta moom moo ne Fadal Égypte bi ñu xam ni sax du taxul ñu naan du Égypte ñun ñoo ko moomoon dëkk fa def fa lu baax la fa newoon ñi fa nekk ni population bi fa nekk ñu naar yi ay envahisseur lañ comme américains yi tey mun nga dem ba foog na ñoo moom Amérique dañ fa dëkk tubaab yi fa nekk ay envahisseur lañ hmm. ña fa dëkk ay dëgg mooy indien yi ñu ñàkk xam bu ñu xam suñu histoire Cheikh Anta loolu la guerre donc pour man déjà ñuy xaar le 7 février pour wax ci Cheikh Anta muy bés bu mu dellu bés boobu bés bu triste la hmm. bés bu triste la am nañu ay dates yu fasantikoo ci at bi yoo xam ne dañ ko waroon a jël di ko dundalee Cheikh Anta di ko wan xale yi di ko meññetal. Mm. mais drame bi am mooy que Cheikh Anta a vite compris que ce combat là mënul comme dem continuer ba mun un combat mu def ci ko politique lu am solo lu am solo. Mm-hmm. un tey jii bu ñuy def ci discours politique yi ñu koy def ci olof dañ ko gërëmee Cheikh Anta. parce que te am na benn audio sax boobu mu ngi ci euh, per ñu ngi koy dégluwaat ci yoon bi. bu mm-hmm. euh, ñu ko defee woon benn muy wax ak muy def meeting ci wolof Cheikh Anta temps d'antenne moo ko njëkk a def wolof parce que boobu français rek la ñu def mu naan muy wax ñi nan leen xam ngeen lu tax ñu ñuy jiite surtout way politique yi duñu leen nangoo wax ci seen làkk réew mi parce que la ñuy wax ci nasaraan bu ñu ngeen ko waxoon ci wolof ngeen gàddu yet gàddu yet <laughs> ndax nakal ngeen seen mbay li ngeen di bay nan la ñuy def ba gerte gi yokk nu ñuy def ba ñu defar suñu cos loolu buñ ko bëggee waxtaanee ci assemblée ñu waxtaanee seen làkk réew mi ngeen bokk fa toog ko wax yéen leen ci yéen leen ci ëpp xam-xam mais dañu fexe ba indi làkk bi làkk bi nekk benn tampon pour exclure luy Cheikh Anta naan mi ngi naan ñi nga xam ne ñi dégg na làkk bi ñi dégg nasaraan ci réew mi motul asaka réew mi lu tuuti la ci askan loolu noonu yooyu yëpp Cheikh indi ko tey nag Sénégal day ce n'est pas du ce n'est pas pour rien maanaam tey jii mhm. liggéeyam nit ñi sax mënuñu ko dañ koy xeet mais boo ko xoolee dafa dafa transformer Sénégal fondamentalement parce que Sénégal ngay gis ci dëkk yeneen africain yëpp moom benn langue nationale bu fort wala ñaar ñett yu fort loolu liggéey Cheikh Anta la parce que daf ko valoriser xeex ko teen ko gëmal nit ñi boo demee ci yeneen dëkk yi si boo génnee Afrique rek da gis ne tubaab bi la ñuy jël anglais la wala français mhm. donc Cheikh Anta loolu mu def ci liggéey bu am solo mhm. côté science côté te ji defetu Cheikh Anta yi aussi war nañ ko wax par exemple ma jox ci benn exemple c'est pas parce que dama li ma sol nii moo tax la parce que bësam la hmm. mais photo Facebook ak ci réseau yi Euh, bi ñu jógee ceytu ñu bëri naa man mais yow li nga sol ni yëfu séeréer yi nga sol mooy lan yow li ngay def nii mooy lan ma lii lay Cheikh Anta doon xeex li nga xam ne siin gee lañ ko defar noonu mi nga xam ne sénégalaise la buy góor góor góorgóorlu dem jël suñu tissu africain yi di ci defar ay mode yu taxaw pour ñu mun ko sol boo ko solee ñu foog ne da ngay kaf mhm. il faut ñu foog ñun ñu niroog soit dañuy niroog naar yi wala ñu niroog tubaab yi pour ñu mun a wane suñu personnalité mhm. Cheikh dafa bëgg ñu dellu ci suñu bopp gëm suñu bopp xam suñu bopp parce que nag mënuñu jëm mu ko kanam projeté wu dans l' avenir bu fekkee ne fu ñu taxaw nekkul ci suñu bopp. parce que mënuloo tey ji xam nga d'ailleurs ni nga koy xamee mooy ñun lépp lu ñuy def dañuy gën a rek suqali tubaab bi la ñuy gën a ñoŋal. Mm-hmm. xam nga Occident la ñuy gën a ñoŋal parce que seen xarala la ñuy utiliser seen lii la ñuy utiliser seen lii la ñuy utiliser Cheikh Anta dafa bëggoon côté économique épanouissement lépp ñu xoolaat suñu bopp. yoon bi ñu jël nii baaxut parce que yoon wi daf dañ cee nekk wagon ci terrain boo xam ne bopp bi ñun jëm jëguñu ko cheikh nañu nag foog ñu am suñu terrain bopp boo xam ne dañ koy dawal chinois yi lu tax tey chinois lu tax yenn dëkk yu mel ni ay Vietnam ay Corée ay Taïwan ñëpp ñun ñu rawal leen ci ay 1960 tey ñu mun ñu raw lu tax parce que seen lakk yi ak seen histoire ak seen culture ca la ñu sëkkandiku pour mun a jëm kanam ñun ñu bëgg a jël sukkandiku ci culture ñeneen ñi fan la ñu jëm dañuy wër ci suñu bopp rek malheureusement nag loolu boo amee nit kooku ci réew mooy politique yi ñoom ñoo ko war a xam génne ci parce que malheureusement Cheikh dañ ko politiser ba léegi ba léegi dañ ko politiser il faut ñu dindi aspect politique yi nga xam ne parce que ñëpp dañ ko jàppee ne wuyu fu waa RND la ñu ne non non ñii ñun waa PS dañu ko mais non lim fi defar fi mu ñu bëggoon a yoon bi mu ñu doon niital bu ñu ko toppoon tey jii du waxee wax yoonu Sénégal émergent mm-hmm. dañuy wax suqaliku nañ yàgg na mm-hmm. xam nga tey pour nga am sax slogan bu baax foog nga def ko ci France mm-hmm. donc waxu Cheikh Anta moom dama foog ne dañ ko doon def benn numbelaan spécial xam nga parce que man sax xeebu naa ci wax ci moom xeebu naa ci trop bokk naa si ñi nga xam ne dañ ko xam sax tax bi cofeel bi ñu am ci mun ci am yëpp am na si ñoo xam ne ñoo ci gën a ñun côté activisme la ñu xam naka la ñuy góorloo naka la ñuy gën ñaax ndaw ñi ba ñu jël yoon boobu et puis surtout que yi mu doon wax mu bañ a nekk ay wax kese yu ñuy wax di ko répété nañ ko jikkawoo ñu di ko jikkawoo di consommer di suñu làkk réew mi ñu jox ko ñu jox ko àq ba mu am ci réew mi xam nga suñu koom-koom bi ñu xool ko lañ fiy jeexat ci réew mi ñu di ko consommer yëpp ay schéma wu Cheikh Anta Diop mm-hmm. pare nag gëm suñu bopp gëm suñu bopp di dignité boobu mooy waral nit du la yées nit du la jaaxal foog naa professeur wax na ko léegi. Mhm. dara du la yéem. kii moo ko doon wax Boris Diop. Mhm. mu ne ndaw ñi bu leen dara yéem. parce que loolu la Cheikh Anta doon def ne woon dañu bëgg fexe ba tabax benn génération boo xam ne ñoom ñooy tabax Afrique. Mhm. mais loolu nag pour ñu am ko foog ndaw ñi mën a gëm seen bopp parce que boo gëmul sa bopp doo a jot ci xam-xam. effectivement xam-xam moo nekk base su lépp loolu la ñu Cheikh wax. alors alors su wàllu euh, euh, honorable Cheikh Omar. foofu le Senghor waroon jouer un très important. malheureusement Senghor ay été utilisé contre beaucoup d'acteurs sénégalais te koo ci jël ni ñuy célébrer Cheikh Anta mënoon nga ko célébrer noonu comme Mamadou Dia wel tu peux le célébrer parce que li mu fi def ay ñoom val joojo dañ fi def mais yoo xam ne ay nit yoo xam ne tey génération boobu mënuñu ko am ba parce que génération bi en fait bu Senghor joué woon rôle mu waroon joué rek Sénégal mën na moo doon nekk locomotive Afrique. c'est sûr parce que dafa amoon grève. Uh-huh. aussi bien du point de vue intellectuel que religieux. Uh-huh. boo xam ne Sénégal rek après les indépendances boo amoon. Uh-huh. Sénégal nga amoon pendant les indépendances au delà de Cheikh Anta au delà de Senghor au delà de Valdiodio Ndiaye ñoom ñëpp Babacar ñi nga séddee tu avais à côté Thierno Seydou Nourou Tall tu avais Babacar sëñ Babacar tu avais sëñ Fallou tu avais sëñ Issa Issa Lay Alaaji amul benn dëkk ci Afrique bu ko amul donc sën nga détenir à ce moment lenn loo xam ne tey bu joué woon un rôle boo xam ne tubaab bi joué wuñu ko rôle boobu Sénégal dépassé malheureusement comme ni ko wax dañ ko booleeg ak Cheikh Anta. mu xeex Cheikh Anta fii Cheikh moom xeex Mamadou Dia fii Sénégal bi yëpp perdre en même temps. c'est ça. on a on perdu du fait que ñooñu ñooñu les géants ont eu clash boo xam ne jaru ko woon te clash bi yëpp clashu égo la woon. Mhm. li ci ëpp égo la woon parce que ku xool tey Cheikh Anta ak li mu def bu ko Senghor mayoon as tuut rek mu def ci dix pour cent wala quinze pour cent. li ñuy waxtaanee fi dépassé nañu stade boobu. yàgg na mais jotu ko moom jotul def lu mu bëgg a def te malgré ça nit ñi ñu ngi wékk ci li mu li mu mu jot a liggéey parce que dafa décomplexé l'esprit africain fii tubaab bi yóbbu woon wax ji ba naxee ba nee ne non yéen fii ngeen mën a yem moom dafa ñëw tegg lépp teg fa la tey nag ni ko Fadel waxee dafa am problème problème bi mooy ci biir université ci boppam créé ñu espace yi nga xam ne dañu war a revisiter l'histoire ma moom man am na chance comme Égypte laa juddoo bu <laughs> xaw naa cee bokk tuuti <laughs> naa ne bokk na mais créé wuñu espace yi nga xam ne tey nit ñu mel ni Cheikh Anta bu fan yooyu muy wax ñu revisiter ko ba xam ban rôle ba muy wax teesam ba Paris lan la doon wax ak fan la sukkandiku